dix-huit heures ba vingt-trois heures ci loolu lañ ne woon ñu ne dama dégg ñu bëri ne Khalifa Ababacar Sarr moo ko def moo ko tey te dafa bëggoon piéger parce que Barthélemy la bañ mu def lii et cetera loolu dara du ci dëgg dara du ci dëgg te dama leen ci wax ay firnde yu leer vers vingt heures bi ma waxee ak dama ko ne Khalifa diggante Babacar Mbeng ak Pala Samb génne ci kenn nga dugal benn jigéen ñu dem déposer liste bi mu ne ma il faut mu waxtaan ceeg barte Barthélemy Diaz parce que Barthélemy Diaz tient à avoir ses trois députés ses trois hommes à Dakar vingt une ma woowaat ko ne ko est-ce que ngeen ko mu ne ma xaaral ma woo Barth mi ngi woo Bart def ko haut-parleur maa ngi koy dégg bi mu ko waxee Bart daf ko ne mënuñu changer parce que fi ma ko teg mooy dama soxla ñu may jàppale ci campagne bi Dakar il faut ma am ay maire yoo xam ne mën nañu xeex te dinaa mun a ànd ak ñoom ci campagne bi donc su ngeen ma génnelee maire yooyu dinaa am problème pour battre campagne. ma ne ko xalifa raccrochel s'il te plaît mu raccroché ma ne ko waatal Bart nga dugal ma bi mu woowee Bart dugal ma li ma la wax nii c'est vingt une heures et quelque ma ne ko Barthélemy génne leen benn góor ngeen dugal benn jigéen parce que du liggéey li ñu liggéey ba egsi fii ñu naan ñu benn góor ak benn jigéen ñu nar a yàq suñu lis et li ma la wax nii c'est pas une consultation parce que deux leaders c'est des leaders qui desit ici li ma la wax c'est une décision on va sortir une femme un homme et on va mettre une femme ñu waxtaan waxtaan mu ne ma d'accord na ñu xool léegi moom xalifa na woo Palla pour wax ko ko ñu arrêté loolu bi ma toogee ba 22 heures y pas d'évolution j'ai appelé Déthié Fall ma ne ko Déthié non yum mi moom ma woo il était à la direction générale des élections mu ne ma y a un problème et cetera ma ne ko passe ma Déthié ima passe Déthié ma ne ko Déthié génneel un homme nga dugal une femme tu déposes la liste parce que tamit nag coalition bi diw moom ko diw diw moomu ko fais ça ñu avancer il me écoute nañu xaar tuuti comme dañoo ànd ànd bu rafet ba fii nañu xool nu ñuy def ak suñu euh, nos amis de taxaw pour bañ mu mel ni dañoo wañ seen loxo forcer leen def affaire bi ma ne ko léegi dëcce suñu toogee ba vingt ba vingt trois minuit waa taxaw décision qu'est-ce qu'on fait mu ne boobaa je prends mes responsabilités je fais ce que j'ai à je dépose ma ne ko d'accord noonu noonu ba xalifa vers vingt trois heures et quelques mu ne ma on un accord on va sortir par là et on va mettre Ngoné Ngoné Mbengue lii soo gisee ma ko c'est pas que dama bëgg a nettali ay affaire biir mais dama bëgg ñu génne lenn mooy les gens de mauvaise foi nga xam ne duñu wax dëgg mukk ak nu ñu def ba yàq jàpp nañ ni mun nañu féewale Barthélemy Diaz ak Khalifa Sall wala Ousmane Sonko ak Khalifa Sall dégg naa ci kenn koo xam ne dafa fen fen ba ñuul kukk ngeen jégal ma ci kàddu gi kilifa yi du mus lu mu mus wax ci àdduna ba suba ba ngoon jot du dëgg naan Sonko a di à Khalifa allez vous xam nga mag mu toll noonu nga xam ne tey li la dese ci dund li nga dund moo dese la dese dund ngay wax loo xam ne dara du ci dëgg kon ñooñu laa bëgg Sénégalais xam ni fii problème amu fi lii rek la du benn complot du loo xam ne Macky moo jënd ma Massamba wala demba amul ci Yewwi Askan Wi du loo xam ne lu ñu complot la pour casser la carrière de X ou amu fi kenn ku nekk c'est de bonne foi Khalifa a tardé à prendre une décision parce que dafa bëggoon waxtaan ak Barthélemy ba ñu déggoo Barthélemy a tardé à lâcher parce que dafa jàppoon ni équipe bii la soxla pour mun a gagner Dakar c'est tout amu fi leneen mais ku nekk yor sa làmmiñ mbër mbër mbër et puis nos la foog ni mën nañu jaxase yewi askan wi laaj leen kan mooy euh, nu mu Saliou Sarr ñoom dinañ am leen doy ñu ngi ñëw ci loolu kon lii moo fi xew il n'y pas de problème entre xalifa Sall ak Barthélemy avec entre Ousmane Sonko ak lii certes il y de la négligence humaine certes il y des erreurs et nous les assumons mais de là à vouloir yóbbu affaire bi fenn loolu amu fi et tout ce procès qu'on est de faire à Khalifa Sall il faut que ça s'arrête c'est faux nit ñi mun nañu bañ a kontaan ci investiture yi mu def ça c'est autre chose mais wax ni dafa jaay liste bi dafa lii dafa laa loolu amu fi la ca des nag bañu demee ba décider ne dañuy dem déposer la xew foofu direction des élections foofu it erreur humaine la parce que boobu ñoom def nañu vingt quatre heures foofu plus de vingt quatre heures ku dugg vingt heures ba le lendemain vingt trois heures quarante cinq nelawuñu lekkuñu lu baax sonn nañu ba pare nag ñëw taxaw ñu ne leen ah lii lu mën a nekk la kon loolu c'est une erreur humaine Déthié kenn mënu ko remettre en cause en tout cas man il a à cinq cent pour cent ma confiance et mes parce que nag nit ñi xaaruñu lu dul erreur am ku nekk di wax waaye Déthié Fall moo yoroon suñu suñu suñu investiture élection locale yi souvenez soixante-dix listes yoo xam ne daw na subaak ngoon ànd ak avocat yi bi sous préfet ak préfet ñoom ñëpp def seen gàngoor googu di yàq suñu suñu kii suñu liste yi kooku mënuñu xëy tey depuis combien de temps la nelawul siège am lay fanaan ànd ak informaticien yi depuis parrainage ba ni ñuy déposé liste yi ba ni may wax ak yéen nii ma nga ak avocat yi ñuy préparer des recours les gens sont tranquillement dans leur salon taal seen truc yàkkamtuñu lu dul erreur bu ndaw am ñu loo mës a def ci àdduna baaxatul faut qu'on arrête ça d'accord erreur am na négligence am na peut-être même euh, naïveté am na mais loolu mun na am mun na dal kenn ku ne ci ñun ça ne remet absolument pas en cause ni l'intégrité, ni l'engagement, ni la probité, ni la détermination des gens. Et ils ont besoin du soutien de l'ensemble de la coalition et de tous les Sénégalais. Parce que pièce indispensable.